dañuy rafetlu lu ko Sénégal yi fale le monsieur le président de la république joxaat ko benn deuxième mandat di wax rek ne aussi comme mu ko waxee ci discours am mooy 42 pour cent yi mu votelul dinaa xool lu tax voteluñ ma aussi di xam ne rek aussi boo xoolee 42 pour cent ñu ci bëri ay ndaw lañu donc ça veut dire que ndaw yi dafa am lu ñuy xaar ci président Macky Sall c'est vrai il a fait plus de emplois mu ngi wax un million d' emploi ci cinq ci quinquennat bii di ñëw incha allah te xam nañ ak toutes les ressources naturelles tey yu Sénégal am ak jéego yi Sénégal def pendant le set ans ak yi ñu teg yëpp xam nañ ne am nañ ci moom yaakaar ñun nag ay ndaw lañ nekk ci parti am nekk ci bi mais dañuy xamal leen ko rek ñun moom la sénégal yi fal moom la sénégal yi jox carte blanche pour mu mën a liggéey tey loo xam ne mooy ëllëg ëllëg Sénégal ëllëg suñu ëllëg donc ça veut dire tey ñun tey ñun suñu rôle mooy suñu taxawaay tey mooy tey taxaw protégé ko euh, ànd ak moom euh, comme ni ñu ko defee woon euh, bu yàgg gën ko taxaw te te protéger ko ba ba benn chantage du mun a am de ba benn nit du mun a taxaw pour fëgg dënn pour wax ni daf ma war a defal lii daf ma war a defal laa. parce que tey sénégalais yi doyoon na leen ñu ci réew mu defaat fi leneen tey mu doyaat ko ñu tegaat ko ci réew mi donc ça veut dire nit ñi aussi war nañ dalal seen xel xam ne sénégalais yi Macky lañu fal xam ne sénégalais yi doyloo nañu Macky Sall te xam nañu aussi ñun ndaw parti aussi ndaw ñi nekk ci ci coalition bi aussi doyloon dañ ko doon ça veut dire dañ ko war a jox carte blanche protéger ko ba tey quinquennat bi muy dugg tey mun ko war ko mun a réussir parce que bu ko réussir mooy doon suñu réussir ñun ñoom ñi amoon espoir tey ne Sénégalais yi nañ ko nañ ko renouveler confiance am te aussi di wax ne tamit deuxième mandat bi tamit liggéeyam moo ko jox parce que tey boo xoolee projet yi mu taxawal fépp ci ci ci Sénégal fépp ci tey foo mun di dem jéego bu nekk laal na ko te ça veut tey moom ci boppam moom moom moom may boppam deuxième mandat boobu moom ci boppam aussi tamit moom moom may boppam tey loo xamante ne mooy Sénégal war nañ ko mën a wóolu te war nañ ko mën a continuer ànd ak moom ci loo xamante ne mooy pour ëllëg